ci xeex bu mu bu ngir jëlee fi occupation anarchique voie publique bi fii ci Dakar ministère bi ñu dénk urbanisme logement ak hygiène publique taxawal na benn programme ngir dindi lépp loo xam ne day indi xat-xat ci mbeddu dakaar yi. ci commune bu Dakar Plateau rawatina si marché Petersen foofe la ñu tàmbalee opération yi teewaayu sous préfet ba. ñun li ñu libéré li ñu demandé mën nañ bàyyi voie publique bi mooy yoon bi dañ ko bàyyi tali bi dañ ko bàyyi trottoir nañ ko bàyyi ak koo mën a doon ak foo mën a jóge ak loo mën a doon ku fi occupé trottoir ne da ngay jaay daan sa doole. wala nga bàyyi sa oto ci kaw télé bi di ñu ko ñàkk cette fois-ci les mesures là nous ne sommes pas pour badiner loolu laa bëgg ñu xam ko donc lii ñu commencé tey ëllëg dañ koy poursuivre ñi làq oto yi ci ruq yi tamit dañ xam ne oto fu ñu ko làq dañ ko génne yóbbu ko. direction général cadre de vie ak hygiène publique moom la ñu dénk ngir mu doxal yooyu la opération ngir fexe ba dindi lépp loo xam ne day indi encombrement ci mbeddu Dakar yi. li ko xatal nag mooy oto yi nga xamante ne dañ ko cee bàyyi donc oto yooyu daanaka mbalit lay doon. donc ñu war a jël ay matukaay pour dindi mbalit boobu mooy oto yooyu suñ ko defee ba pare ñu xool yan pexe lañ mën a def pour que trottoir yi aussi mën a libre pour que population yi mën di dox seen i soxla ci loolu nag jël nañ ay moyens yu am solo def ko ci waaye loolu rek doyul il faut que population yi aussi jàpp ci ñun dinañ def fii benn dispositif de suivi bi nga xamante ni suñuy agent police ak agent municipaux yi encadré leen pour éviter réoccupation bi waaye il faut que population yi ñoom également ñu jàpp ci. opération yi ñu amal ko itam ci wàccaay fukk ak juróom-ñetteelu édition bésub seetal.